ndeysaan ey merci bu dellu si moom ni soo xewley xarit yi teew mbokk yi teew am di jàmm yi teew samara ci laay wayal ni loo dundu doyul ni loo dundu doyul waaye woon de fut ci jamono kenn du ko mi mooy bi waa bés si moone bés bu moone

kontan wonderful, pas nañu trop ci wa Wonder Food parce que ki la yek bëgg la koku mëno ko fay ndax nak du borom lay tollol kon ki am xalaat ci kenn te mënoon a xalaat ñu bari mais ñom ñëpp mu tepp leen tamul ci sa bëss kon koku mënu mëno ko fay donc vraiment kontaan nañu lool and ak suñu rak tay gungé ko ndax nak mom day mom dafa jeex ci ñun tak donc dafa don chanteur bo xamantene dama ko respecté lutax ma respecté ko parce que ku jox cër nit lool ngay njëkk sétlu ci jëmm ji donc ñu ngi lay gërëm grand di le remercier sa taxaway rafetna médecine nag lu tax ñu tuddee ko wax na ko léegi xaaruñu ci moom xaalis xaaru ci ñu moom dara waaye dafa nekk jeune ci koñ bi ñu xamee ko ful ak fayda maak moom on n'est pas d'obédience politique bokkuñu même même même parti politique man APR laa nekk doon jàppale Macky Sall mu nekk opposition mais ñu nekk ci commune bi nekk jeune teewul respect boobu mutuel am ànd bi ñuy am ànd relation bu ñu am c'est au-dessus de bépp clivage politique bu mun a am fii ku nekk am nga foofar koo àndal waaye bu loolu yëpp jeexee ñun ñoo bokk commune bi ñoo bokk yéene ci commune bi. non mais Wonder Food boo ko gisee léegi ñëpp commencé ubbi restaurant di leen copier Youssou dafa dem ba France jàngi ko façon sandwich yi ngay gis fii doo ko ko lekk feneen certes nit dañuy jënd ay man ak moom toog nañu benn bis. nit jënd sandwich ci moom yóbbu ko palaasam dajj ko pour defar sandwich bu mel noonu da ko jàngi woon du ay caaxaan ko le football lek sen Qui sont sakat ko ñu fi dekk nu ñu mel léegi ni ñu amee yaram lek bi dafa bax déjà euh, joyeux anniversaire à Wonderful ba le contact de mon frère c'est un collègue Youssou Youssou Ba un jeune entrepreneur c'est important il crée de l'emploi pour man genre yu mel ni dañ leen wara booster war leen encourager té comment les encourager c'est à ñëw ñu ñëw di consommer li ñi jaay pour mu mëna a tijji yeneen Wonder dans Dakar ou dans le Sénégal. ñun dañuy lekk fu ne dañuy dem fu ne dañuy lekk fu dans le monde donc bu ñu ñëwé ba tok Wonderful Food fa apprécier rek c'est parce que borom liggéey na dal on voit des jeunes vraiment dynamiques.

accueil bi machallah ni ñuy joxee clientèle yi seen gëdd vraiment day tax même bo démé da ngay ñëwaat. lii initiative ay jeunes sénégalais la ñun ay jeunes nañ man j'ai même pas 35 ans ñima ma di fi liggéey amna ño ñoo 28 ans 26 ans nañ am <coughs> mais dafa am lo xamante duñ ko bëgg briser Sénégal lu ñuy importer di ko jëlee feneen di ko indi di ñu gëmloo ne ñeneen ñi ñoo am expertise alors que l'expertise locale mo ngi fi amna ño amna xam am lu ñu mën. xam nga restauration lépp mise en place la mise en place dafa important c'est-à-dire client yi bu

am na ay yeneen menu bi am na beneen nouvelle menu bu war a ñëw nouvelle carte bu war a ñëw ci 2020 bi incha allah xam naa début janvier bi dina démarrer ak ay yeneen surprise daal ñu ngi sant nag clients yi di leen gërëm mun ñu leen a fay daal parce que tey ñoom ñoo ñu dooleel ba na actif